mu ne waman tadakkara képp ku fàttaliku asirra yalu mooy wax ndànk awil jahra wala béral xabla rukoin lu jiitu muy rukoo avant muy rukoo dafa fàttaliku yelu maanaam dafa doon jili tusubaar tusubaar ndànk lañ ko war a wax du dëgg ndeke moom wax na ko ci kaw bu fàttaliku ne ndànk lañ ko war a wax nee na aada na baamu alqiraata jànga lam jàngoon na ko jàngaat fa in kaana ndem nekk na loola mu jàngoon kay dalika loola fi suurati ca saaroo wax daha moom kese kon aadaha na ko baamu wala sujoodu alayhi te sujood du ko ci war su fekkee ne fatiha jàngoon na ko ndànk ba noppi saar wam ca teg mu juum jàngoon ko ca kaw mu fàttali ne moom mang ma ngi ci tisubaar tisubaar ndànk lañ ko war a wax xam nga lan moo ko war na jàngaat saaro woowa mu tegoon ca fatiha ndànk waaye su pare sujood du ko war ndax yaa ngi xam ne booba rukoo agut après mu rukoo continuer ay ay mbiram dégg nga waaye wa in kaana dem nekk na loola mu loola dal ko fil fatiha te ca fatiha la su fekkee ca fatiha la ko dalee fatiha ci boppam da ko wax ci kaw yaa ngi dégg yàlla dogal mu wax saaroo ndànk mu fàttali ko ne fatiha ndànk lañ ko war a wax ndax ti subaar la su boobaa nag aadaha ah, ah, na ko baamu wa sajada tam sujjóot baada salaami gannaaw sëlmal est-ce que dégg nga wax bi su boobaa day baamuwaat faatiha de waaye après day sujjóot baada salaam dañuy jàpp dafa yokk noonu la itam su fekkee ne ci bérél la ko def li benn exemple la waaye niñ la ko waxee ci ci yelu noonu la nekkee ci bérél est-ce que dégg nga wax bi incha allahu rabbi